Brawo, brawo, brawo. voilà ñu ngi fii euh, niñ leen ko waxe woon ci euh, arène national ni ngeen ko gisee ambiance bi mi ngi commencé yéeg supporters yi ñi ngi commencé di ñëw waaye li nga xam ni moom la ñu gën a remarqué Lamine moo di il y a un important dispositif de sécurité nga xam ne euh, la police mi ngi nekk en place ñi nga xam ne ñooy la gendarmerie quelques soucis on revient tout à l'heure pas de soucis Malik alors pas, on de, a soucis. pas de soucis vous l'avez tantôt dit aujourd'hui c'est un très grand jour sécurité bi mi ngi fi Malik Thiandoum tey la tey tey la ñu xam ndax couronne bi day dem Pikine tey la ñuy xam ndax couronne bi day dem fi nga xam ne moom mooy Parcelles Assainies mais ñu def benn rectificatif bu ndaw rek Malick côté bii nga xamante ni nii fii la suñu kaar bi toogee foofu la waa kër Ama Balde di jaar na leer ñoom dañuy jaar côté Pikine loolu moo tax ngay dégg Ama yee Ama yee Ama yee waaye loo ci munti dégg Malick amaa Ama Balde duy na stade bi ba mu fees loo ci dégg ba Malick Thiandoum bu ñu demee côté bële di nga gis ni que Modou loo duy na stade bi ba mu fees waaye am na benn parti boo xam ne Malick Thiandoum parti boobu parti amateur yi la du parti fans tey daal c'est un très grand jour ñu fàttali ko wax ko waxaat ko ndax la répétition est pédagogique le roi des arènes Modou Lo bii mooy bu njëkk mu tooyal ngembam mës ta bëre fi nga xam ne moom mooy arène nationale kii di Ama Baldé it ka naka noonu mës ta bëre national nationale waaye Malick Thiandoum bëri na arène nationale Lamine Samba bëri na arène nationale maa ngi ko doon wax léegi il y a un important dispositif de sécurité nga gis le groupement mobile d'intervention en l'occurrence la police est en train de faire la ronde boo xoolee tamit un peu derrière nous Lamine bu ñu demee ba ci kanam di nga gis ni pour dugg ci stade bi il faut montrer patte blanche il y a un dispositif ah, pour permettre aux uns et aux autres ah, d'être fouillés ku nekk dinañ la xool bëgguñu dara dugg bëgguñu puso dugg bëgguñu luy gaañ a dugg alors voilà l'ambiance au stade la l'ambiance au stade kese ama kese ama kese kese père Lamine ñu ngi sant waa Pikine ñëpp ñu ngi sant bépp waay fu mu mun a jugee ama am na ñoo xam ne mbuur lañ jugee léegi lañ jugee gàlle ama wante ñu ngi koy ñaanal yàlla mu dóoroon ñu Modou daanu billaay Modou Lo xaar c'est l'ambiance c'est l'ambiance c'est l'ambiance Malick Thiandoum c'est l'ambiance maa ngi tudd Touba lañ jógee Touba Ama dong ma ñu tax a jóg fii la Ama ye Malick allez-y ñu xaar boo xoolee gars dañoo nelu benn nela ngi nii beneen nela ngi nii beneen la boule à zéro parce que loolu mooy li Ama wone mooy li Ama def loolu dafay wane ni tey làmb dafa am engouement populaire làmb dafa am lu nga xam ne moo di passion te tey xale yi fu nekk la ñu jógee ci biir Sénégal ñii pour supporter Ama Baldé ñii pour supporter Modou mais li ñu bëgg gaay mooy tey fair play la Ama woote fair play la Modou Lo woote lan ngeen di wax ci loolu. loolu incha allah rabbi di ñaan yàlla yàlla may ndam Ama ñu seet wecc ci kaw Modou Lo. génn stade bi laa génne nag mais Modou Lo andeegul dara. supporter Ama ñu ngi fees dellu stade bi. supporter Modou Lo bu boo yéexee du am place ci biir. ci biir laa génne. fair play bi lu ngeen ci wax. dox di lépp fair rek ñun Touba la ñu jógee Touba Malick Mbacké la ñu jógee ba fii Ama dong moo ñu tax a jóg Ama rek gis nga ko dañoo nelu fii yëpp ay nel la stade baa ngi fees dell lépp waa Ama la Modou Lo amu ci wàll Modou du def dara Modou Lo du bëri lu xeex barke Mame Sada Fall Modou Lo du bëri lu xeex du bëri lu xeex du daan mais dégg ngeen li Ama wax bu puso jóg bu jóg bu mbuus jóg bu jóg yëngal leen ci kaw mu yëngal ci suuf ndax di ngeen ko jëfee tey Pikine lu ñu woote mooy ñun jàmm si lañ mës a dox xëy na dinañ waxal lu nekk dinañ dégg lu nekk mais tey ku ñu gis ak nu ñu ñëwee xam ne jàmm rek moo ñu tax a jug dañoo ñëw am lu ñuy jël si te ñaanuñu ko de dañ koy fokkati ama yee bi ama yee bi lay bañ a dégg par force da koy dégg Malick Thiandoum Malick jërëjëf bu fekkee ni nag dañoo am li nga xamante ni moom bi nañu ko bu bu bu lëkk lekkee alom na koy gërëmee cooy Malick Thiandoum grâce à groupe EDK ak KPI ñoo maye direct bi ba senegal di ko seetaan KPI nag mbokk yi sénégalais yi ñoo ko moom KPI nag mbokk yi ci Sénégal la nekk te mbokk yi balaa ngaa jéggaani sa kër dafa tëkkul Malick bu fekkee ni yow balaa yónnee cent franc da dem Amérique wala nga dem France nga yemale ko fii ci Sénégal ndax tey dañu ne woon lamb dee na tey dañu ne woon làmb dootul amati lépp li ko waral mooy dootuñu ko seetaan ci tele bu fekkee dañoo dem bay seetaan lamb ci télé tey bu lëg lekkee arom na ko gërëmee coy c'est grâce au groupe EDK ak KPI KPI nag liñ leen di ñaan mooy mun nga ci yónnee mun nga ci jot xaalis mun nga ci fay loo mën na fay Malick Thiandoum yaakaar naa ni daal gërëm kaapee jar na ko ndax Sénégal la Sénégal dong kese Sénégal rek. ku la lebal euh, ker da nga koy fay guddi parce que tey làmb dafa rafle woon sponsor lan moo waral ñu rafle sponsor ñu bëri dañ doon wax violence ki nga xam ne tey mooy le groupe EDK à travers KPay mu ni sénégalais yi ñoom laay liggéeyal sénégalais yi ñoom laa bëgg ñu gis seen bopp ci làmb ji kon j'offre le combat en direct bu dee yónnee bu dee jot xaalis bu dee fay facture lépp kàppay moo ci. mooy dootuñu ko seetaan ci télé ku fekkee dañoo dem bay seetaan làmb ci télé tey bu lëkk lekkee arom na ko gërëmee coy c'est grâce au groupe ODK e ak KPay KPay nag liñ leen di ñaan mooy. mun nga ci yónnee mën nga ci jot xaalis mun nga ci fay loo mën a fay Malick Thiandoum yaakaar naa ni daal gërëm kaapee jar na ko ndax Sénégal record bi wala déet ndax ab sénégalais moo ko samp def ko ci biir Sénégal te loolu lépp nag Malick bu ñu ko amee ba nga mën a wax keneen mën a wax kaapee la kon jërëjëf kaapee jërëjëf groupe EDK mais Malick. jërëjëf kaapee waaw ku fi ñëw te lekkuloo du baax ndax saako bu amul dara du taxaw Malick xoolal fii fii. voilà merci à kaapee léegi Lamine ce qu'on va faire. waaw yaa ngi koy wax léegi nit ñi depuis dix heures ñi ngi fii et c'est sûr qu'on sera là jusqu'à heures ou heures. nit ñi dañuy soxla lekk jusqu'à x time. jusqu'à donc nit ñi dañuy soxla lekk dañuy soxla naan mu mel ni que ñi war a jaay am na tey nu ñu taxawee dinañu waxtaan ak ñoom waaye déjà am na ñu nekk fii di jënd hamburger ci sponsor yi la bokk. Cheikh Kacha Cheikh moo ñëw tey ngir jox gaa ñi ñu lekk jox gaa ñi ñu naan Cheikh Kacha ñoo ngi nii gis nga gaa yaa ngi rang ndox maa ngi fi euh, hamburger yaa ngi fi lépp ngi fi gannaaw kaay gannaaw looy jënd gannaaw kuy jënd kuy jënd. non gaa yëpp dañuy jënd Lamine li nga xam ne moom moo fi am. hamburger am na événement bi. événement bi kontaan si rek nga xam ne. caméra bi damaa bëgg Sénégal yëpp di la seetaan. loolu dara nañ ci yow. bëgg nañ ci mi Malick waaw gis nga. sama gars yi ñu ngi fii euh, kenn ku ci nekk yaa ngi wut loo lekk ndax boo bëggee yuuxu ama yee sa biir day fees boo bëggee yooxu mooduloo sa biir day fees foog nga lekk foog nga naan alors tey noonu leen gisee organisation bi ba nga xam ne bu ngeen bëggee lekk di ngeen lekk bu ngeen bëggee naan di ngeen naan mais bu ngeen di dugg également euh, policiers yi dañuy fuyee ñëpp pour bëgg jàmm rek am cee sànni. waaw rek ñoo ñun dañoo depuis cinq heures du matin ba la ñu ngi fi. cinq heures du matin cinq yàlla. seen heure lañ fi ñëw dagg bi ñëw préparé dugg boobu la ñu ngi fi instant lu ñu lekk la ñu ut pour mën a toog mën a yuuxu avant yeewee ca kaw waaw sama gars yaa ngi nii di commandé ah hamburger wala shawarma. wala pizza lépp am na. mais Malick donc merci on va se déplacer bii c'est traditionnel. voilà bi bi bi sponsor la. nañ jàpp si Kaapay. Kaapay nañ jàpp si Kaapay surtout loolu. yow li ngay wax am na solo. ndax ndax boo gisee dox doogu suñu kër yi. bëgg jàpp si kaaba yi moo tax ñu ñëw si làmb ji mais ñun amaa rek la ñuy topp non violence la ñuy woote di wax na jàmm rek na jàmm amaa rek la ñuy topp loolee sax xale lu wax xale dama bëgg wax sénégalais ñun waa Pikine billahi combat bi dañuy jël roi des arènes tey ñun dañoo pare yàlla nañu Serigne Touba dimbale tey Ama li ko soxla tey ñun jeunes yi ñoo topp ci koom. Ama li leen wax ndax dégg ngeen ko bu ndox jóg bu puso jóg bu xeer jóg. yëngal leen ci kaw mu yëngal ci suuf ndax di ngeen ko jëfee. non amaa ñun amaa ñun bi ñu àndee moom bi ñu ko sëb bi ñu ko bi ñu ko àndee moom entraînement. lépp dañ koy bàyyee xeex ñu xulóowuñu xeex bi moo koy xeex mooy duma mooy daal ñu ñibbi. Malick loolu dama bëgg nga fàttaliwaat. waa Lamine Aïcha. ndax ñaari doomu sénégalais ñooy daje. li li Modou Lo yor la Ama Baldé soxla. li Ama Baldé bëgg mooy jël li Modou Lo yor Modou Lo bëgg ko conserver mais il faut ñu fàttali Sénégalais yi ne ñun position bii ñu taxawee li tax déggoo fi kenn koo xamante ni ànd ak Modou maanaam waa kër Ama Baldé yi fii la ñuy jaar. voilà dafa am leeral ko Sénégal yi boo xam ne dañ ko teg. waa Ama bi leeral loolu. waa Modou Lo jaar na le bu ak sa morom dara ci kanam tuuti. ñu dem foofu wax ak ñoom waaye tey li Ama duy ci stade bi. ayca ah. oh! et les vendeuses. Parce que la lutte, c'est toute une économie. La lutte également euh, draine beaucoup de monde. Mais il y a sur le plan économique beaucoup de gens qui gagnent euh, justement quelque chose à, vie. leur vie, euh, à travers leur justement euh, cette organisation. Vous voyez derrière moi ay jigéen ñoo fi ne Malick da ngay dem salé ma dem sucré. voilà waaw demal salé ma dem sucré. jigéen ñaa ngi nii. Malick demal salé ma dem sucré. loo bëgg am na fii. Malick may ko grand. grand may ñu tuuti léegi soxna si. Eh, eh, eh, grand grand grand looy jënd xaaral Malick Malick am na benn client looy jënd grand. Ah, kek jënd. xanaa bi ngay ñëw año non añu ma fi laa fanaan. est fanaan. ku la indi. ama kese. moo la indi. ñëw ma bàyyi la nga waxaale jël. waaw voilà. Euh, bàyyi ma bi benn moo après nga ñëw soxna si lu tax tey nga taamu sucré te jëluloo salé jaay. moo parce que tamit moo tax ma yaa ngi ci ginaar yi yaa ngi ci këccëb yi yaa ngi ci aromage yi doxalal candum. voilà gis nga ni suñu tante mi ngi nii moom euh, di xar mburu mi di ci def ginaar. di ci def foie di ci def euh, soble bu ñu mariné ak ketchup ak kaane ak lépp ci biir donc sa démontre que tey euh, ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi dañoo takk seen ndigg ñëw di daan seen doole ci làmb ji dëgg la condition yi xaw na jafe mais lépp rek mooy sécurité moom la ñu bëgg alors maman euh, bi nga ñëweeg léegi mbaa yëf yaa ngi jar. waa mu ngi jar bu baax macha allah. sandwich lu muy jar. sandwich am na 800 am na 1000 ginaar la ak foie. ginaar foie yàpp. ginaar foie yàpp. boo ci bëgg ba pare nag boo bëggee naan lu sedd boisson baa gi nii. mais Malick xam nga li ci gën a neex mooy bu la neexee nga ñëw nga jóge sa kër doo lekk dara boo ñëwee fii boo soxlaa sucré am na fi boo soxlaa sale am na fi boo soxlaa loo lekk am na fi boo soxlaa loo naan am na fi waaye Malick dafa am lenn rek lu ma bëgg nga taxaw ko seetlu ci dispositif sécuritaire bi on a mille cinq cent policiers et six cent xoolal. xoolal alors Lamine xam nga fële sax laa bëgg. waaw ñu dem. mais mais dama bëgg a amee ma lii rek ci ginnaaw jaaykat bi li fi nekk ci dispositif sécuritaire. déjà déjà déjà gis nga ni euh, la la police est à pied d'œuvre te loolu depuis ce matin xam naa ni euh, gars yi bi ñuy def euh, carré d'armes boo moytuwul euh, quatre heures du matin lañ leen wax jóg leen ñi ngi takk rënjas yi ñi yor li nga xam ne mooy niif yi yor li nga xam ne mooy grenade lacrymogène mais bu ñu sañoon ñoom du ñu jëfandikoo lu ñu yor bu ñu sañoon ku ñu waxal yamal fii nga yam fa ndax ñoom seen liggéey mooy veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens li ñu bëgg mooy ku fi ñëw nga ñëw ci jàmm dellu ci jàmm li ñu bëgg mooy bu fi kenn indi benn débordement bu fi kenn indi benn violence bu ñu sañoon dañuy liggéey ba dem grenade du tàkk liif du jóg te loolu li ñu koy may mooy ñu collaborer avec les forces de défense et de sécurité merci à la police merci au groupement mobile d'intervention et depuis ce matin ils sont à l'intérieur et aux abords immédiats du stade la gendarmerie gère les artères menant vers le stade Malick Thiandoum gère la sécurité au sein du micro na leer nañ ma kii mooy emblème mu Pikine kii xaarul rek ba Ama Baldé di bëre kii xaarul rek ba waa Pikine di bëre dimanche bu nekk mi ngi ci làmb ji mu nekk xale boo xam ne dafa féete féete Pikine lool gëm Pikine lool tey noo indee Ama. waaw Ama la ñu ngi indi rek mooy mooy sant yàlla. sant yàlla ko yàlla mooy ëllëg waaw ñun ñun handicapé lu la mën mën ñu ñu dugg ñun handicapé ñun. ah dañ la tere dugg tey. waaw ñun ñun ñun si suñu yaay ñu ngi lay yaakaar te ñu mbëri mbëri dañu mu ngi saraxe ak rek suñu suñu yaay ñu ko yóbbu mu ngi yër ñun ànd ak maa ngi dugg maa ngi ñëw dugal la Malick am na lu xew de yaakaar naa ni PPV bi am na de waaw léegi nag Malick ci ka ñu dem ci cadre sécurité bi nga wax ñu tuuti ci PPV bi d'accord Lamine xam nga on le disait tout à l'heure pour le direct à l'intérieur du pays et sur l'ensemble du territoire national loolu les gens peuvent regarder euh, le combat en clair et en direct sur la TFM. Mais pour le signal qui va à l'extérieur, les gens sont obligés d'acheter des codes pour regarder le combat en pay-per-view. Pay-per-view à l'extérieur, en direct et en clair sur l'ensemble du territoire mais national grâce à KPI. Mais Ama départ léegi ne Ama départ na Pikine Ama départ na Pikine Ama ngi war a dugg si ci biir stade kon jàppal ni Mawo kon jàppal ni Malick Thiandoum Ama jóge na Pikine mi ngi départ ñëw ci arène nationale kon léegi wuré wa këng waxuma dem dañ tàlli bàgg war mbaam lu waay doon léegi mu lamb Ama Baldé est convoqué à 16 heures 30 minutes Modou Lo est convoqué à 17 heures à l'heure actuelle on nous dit que Ama Baldé est en route pour l'arène nationale Ama départ na mi ngi ñëw Modou ngi départ mi ngi ñëw Wouréwa dem na kër waxi mag dem na ndañ taali bàgg war na mbaam tay la tay tay la tay mbokk yi kon mu ngi noonu Malick Thiandoum la ak Lamine Samba mbokk yi lii ñamali la rek lii ñamali la dañ leen di ñamali wax leen ni borom doole xamul ndànk dañ leen di ñamali ne leen télévision bu mag événement bu mag dañ leen di ñamali wax leen ne événement bu mag mbokk yi nii lañ ko nar a jàppoo ak yéen tey ngeen gis lu ngeen mënta gis tey ngeen soog a xam ni saxayaay moo mag nji mu bees tey ngeen xam ni xëyum 404 bokkul ak ngontum avion te bu ñu demee ba ci biir reportage bi Malick Thiandoum dina làkk anglais la Thiandoum dina làkk français Malick Thiandoum dina làkk wolof Malick Thiandoum dina làkk séeréer tey ngeen xam ni ñun lii la ñu joxe tey pour Sénégalais yi ñiy toog di seetaan xam ni télévision Futurs Médias mooy socc Sénégal te fomp nañ ko ba mu set. bu ci kanamee tuuti on sera à l'intérieur du stade parce que booba léegi ñu ngi ci biti mais on va tâter le pouls tout à l'heure à l'intérieur du stade pour une autre incursion. à tout à l'heure Malick Thiandoum Malick Thiandoum à tout à l'heure sama gars yi